wa hiya assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu wa rahmatullahi taala wa barakatuhu wa nuridu an nataxaddasa maakum fi l udxiyati allati naqtadi biha bi abina ibrahima alayhi salaam allazi umira bi zabaxi falzati kabdihi fa saddaqa ru'ya wa labba al amra wa tallahu liljabin fa naadaahu llahu wa fadaahu bi zibxin azim mbokki gannaaw ba ma musuloo seytaane mi nga xam ne borom bi daf ko rëbb dàq ko si di commencé sama wax ak sama jëf si borom bi nga xam ne mooy yërëm bépp mbindeef si àdduna waaye tamit mooy yërëm bépp jullit bu ko soob ci àllaaxira di julli fii sangu-sangi ku gën si mbindeef yi te mooy yéen tamit sallallahu alayhi wa sallam gannaaw loolu yéen mbokk yi fi teew maa ngi leen di nuyu si nuyoo bu gën a sakkan si nuyoo yi te mooy baatu asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi tey nag dañoo ñëwoon pour waxtaan ak yéen si wàllu tabaski tabaski mi nga xam ne ñu ngi koy dondee si suñu maam ibrahima alayhi salaam moom mi nga xam ne borom bi tabaraka wa taala daf ko digaloon mu rendi doomam si gént borom bi tabaaraka wa taala ba mu ko digalee loolu nag dafa dëggal gént li tegu si benn baat fas yéene rendi doom ji ngir topp ndigalu boroomam si noonu si la ko borom bi tabaaraka wa taala daal di koy woo daal di ko koy remplacer ak xar bu mag kon mbokk yi tabaski foofu la cosaanoo tabaski nag dafa nekk sunna bi nga xam ne dafa war si képp ki nga xam ne àttan na ko moo xam dañ ko kaa may wala mu jënd ko lu tax nag ñu tuddee ko baatu udhiya mooy rendi bu ñuy rendi xar bi si bisu tabaski bi si waxtu yoor yoor jëlee nañ si benn xadis bu xam ne anas radiallahu anhu moo ko nettali mun naa yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daan na tabaskee ñaari xar yu mag yu am ay béjjën moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko daan rendil boppam te bu ko daan rendi daan na tudd yàlla waaye tamit daan na màggal yàlla xadis boobu buxaari yu moo ko soloo kon mbokki fii képp kuy rendi sa xar balaa nga koy rendi war ngaa wax bismillah wax allahu akbar tabaski nag yow mu koy rendi dafa woo nga nga fasal ko yéene yéene rend xaru tabaski bi ngir jaamu si yàlla ndax tabaski jaamu yàlla la waaye tamit topp ndigalu borom bi la mu ne tabaski nag du doy si dul ñeenti yi ma lay waaj a wax si li giléem wala nag wala gàtt gàtt buñ ko waxee mooy xal wala bëy tabaski mënoo kaa defee si li ñeent yi su fekkee si xal la xal bu ngay di ay atam lu néew néew na nekk jason jason buñ ko waxee mooy xal bi nga xam ne am na benn at waaye foofu nag boroom xam-xam yi dañ fa am wuute am na boroom xam-xam yu wax jason si xal mooy xal bi nga xam ne am na fukk ak ñetti weer am na huit mois am na tamit boroom xam-xam yu wax jason si xal mooy xal bi nga xam ne am na fukki weer mooy xal bi nga xam ne am na di mois kon si gàttal daal tabaski xal bi ay fanam lu muy néew néew na am lu mat wi mois balaa muy mat tabaski su fekkee nag si amoo xar nga rendi bëy bëy nag balaa nga koy rendi ay atam lu mu néew néew na nekk saniyu yu si bëy buñ ko waxee mooy bëy bi nga xam ne am na benn at ba dugg si atum ñaareel bi ni ko tamit su fekkee si nag la tamit na nekk saniyu saniyu si nag buñ ko waxee mooy nag bi nga xam ne am na ñeenti at kon nag balaa muy mat a tabaski fekkee nag ngay tabaskee balaa muy mat a tabaski nag bi na fekk mu am ñeenti at soo amee lu gën a néew ñeenti at rek boobaa nag boobu du mat a tabaski ni ko tamit su fekkee giléem la ay atam lu mu néew lu néew néew na mat balaa muy mat a tabaski na am lu mat juróom benn at na am six mu ne nag lu gën na nga tabaskee ko mooy xar xar boo xam ne kuy la moo gën nga tabaskee ko su fekkee amoo xar nga tabaskee xar bu góor buñ tàpp su fekkee amoo xar bu góor buñ tàpp nga tabaskee si xar yu jigéen yi su fekkee amoo si xar yu jigéen yi nga tabaskee si bëy yu góor yi su fekkee amoo bëy bu góor nga tabaskee si bëy yu jigéen yi su fekkee amoo bëy bu jigéen nga tabaskee si nag yu góor yi su fekkee amoo nag yu góor nga tabaskee si nag yu jigéen yi su fekkee amoo nag yu jigéen nga tabaskee si giléem bu góor su fekkee amoo si giléem yu góor yi nga tabaskee si giléem yu jigéen yi foofu la yem nag fekkee amoo loolu yëpp nag nga xam ne yow tabaski wàcc na la mu ne nag tabaski nag balaa nga koy rendi yow muy rendi xar bi da ngaa war a watandiku sikki yi ma lay wàññi limal si kii bu amee si xal bi rek xal bi du dagan nga koy tabaskee du dagan ngay tabaskee xal bi nga xam ne dafa pat xal bi nga xam ne benn bët bi dafa dem xal boobu kenn du ko tabaskee du dagan tamit ñuy tabaskee xal bi nga xam ne day soox soox bi nga xam ne dafa leer naññ xal boobu du ñu koy tabaskee du tamit ñuy tabaskee xal bi xam ne dafa làpp xal bi nga xam ne dafa làpp mooy xal bi nga xam ne amul suux si biir bi xal boobu tamit du dagan ñu koy tabaskee du dagan tamit ñuy tabaskee tamit xar bi nga xam ne dañoo xar lu ëpp si nopp bi xar bi nga xam ne nopp bi lu si ëpp dañ kaa xar xar boobu kenn du ko tabaskee waaye su fekkee lu ñu xar nopp bi dafa néew boobaa dagan nañu tabaskee ko du dagan tamit ñuy tabaskee tamit xar bi nga xam ne dañoo dambu béjjën bi xar boobu tamit du dagan ñu koy tabaskee te fekk mi ngi nàcc xar boobu dagan ñu koy tabaskee waaye su fekkee dem na ba wér nag ba nàcc nàcc bi arrêté boobaa dina daga ñu tabaskeeku mu ne nit boo amee xar jullit bi bu amee xar dafa war si moom mu rendi ko bisu tabaski gannaaw ba imaam rendee mu rendil ko boppam wala sax su fekkee amul amul ku ko rendil mu joxe ñu rendil ko ba tey dagan na gannaaw ba imaam rendee nag si waxtu yoor yoor su fekkee moom dafa njëkk rendi imaam wala mu njëkk a loj avant imaam kooku tabaskeem wérul macha allah kon mbokk yi foofu lañ koy yemale waxtu bi moo ñu xoj in uridu illa al islaha mastataat wa ma illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin macha allah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf Thierno Yahya Ly kon yaakaar